Bienvenue sur Salam Vision. ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi bur yàlla dolli noo ay maqaam yàlla bisimilah. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum mbokku àdduna asalaamaaleykum comme saa su ne gëm naa ni saa buñ jógee rek am na loo xamante ne moo tax ñu jóg bu nee li tax ñu jóg mooy faj sa jàngoro bu ñee faj sa jàngoro émission boobu yàgg ngeen ko suivre di ko yàgg doxal tey nag ñu am koo xamante ni yàlla suñu borom dogal na ne tey ñu ngi doog gisante waaye yàgg nañ koo dégg mu yàggal lëmbe réew mi muy soxna mi nga xamante ni dama koy bàyyi rek ci ay kàddoom mu yëkkati nuyoo nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoo koy seetaan ci même senegal nuyoo ak ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy ànd jàmmam ñu bàyyi ko mu nuyoo soxna Awa Pouye ñu ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum sëñ Ama maa ngi lay mhm. di la ñaanal jàmm. waa di nuyu waa Sénégal ak waa diaspora waa maa leen di siyaar bu baax waa di ñaan jàmm ci réew mi rek te nuyu ñëpp daal waa Sénégal waa biir réew mi ak waa bitim réew yëpp nuyu naa leen soxna Awa Pouye mu ngi leen di nuyu comme ni mu ko daan defee rek. alhamdulilah euh, gannaaw ba nga nuyoo soxna Awa Pouye euh, ñu am loo xamante ni ndeysaan bettee nañ la ko tey ci kër gi parce que am na loo xam ne dañ ko daan dégg ci moom tey ji ñu daal di ñëw. ngir bëgg koo gën a leeralal askan bi ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan soxna Awa Pouye foo tourné dégg ko soxna Awa Pouye ñëpp ne li jëm ci wàllum seet soxna Awa Pouye du ko mën ñëpp foo ñëpp di ko coow soxna Awa Pouye sa diggante ak seet sa diggante ak rawaanu seet sa diggante ak moom lan la. ah seet day wax dëgg yàlla ni ma seet dikkee nee naa bu doon man maa jàpp seet kon bàyyi naa seet waaye mën naa la ne seeta ma jàpp seeta ma wuyu si. ndax ci côté yaay ak ci côté papa yëpp macha allah daal bari na ay sëriñ surtout ay nijaayu saltige waa am naa leen seet daal moo ma téye waaye ku ma xamoon jamono ji euh, yàgg ci rajo émission nga ma xamee bu dul seet ca Ndefleng FM waa ñu bari buñ ma seetaanee tey dinañ ne kii dégg nañ ko Ndefleng ba tàyyi waaw kon seeta ma jàpp waaye du man maa jàpp seet ndeysaan soxna Awa Pouye euh, gannaaw bi nga nuyoo boo wax loolu euh, ci ay jamono yaa ngi woon def lañ daan def animation nit ñi daan la dégg ci même rajo bi soxna aw Pouye ñu dem ba ci biir gis am loo xam ne dogale na ko ba téye ko muy wàllum seet seet jour bi nga xamante ni toog nga ba mbir mi feeñu la ba yàlla suñu borom dogal ba jël loolu sol ko ci yow bi nga demee ba loolu feeñu la sa yëg-yëg ak sa diggante ak doomu aadama yi naka nga ko doxalee. waaw bi ma mbir yi feeñoo nag jéemoon naa dëgër bopp lànk ma ne damay continuer micro rek parce que daal seet bi choisiruma ko woon ma ne micro rek mais affaire yi dafa dem ba téye ma daal ba ba gàllankooral ma sonal ma ci laa nag jaar fi ma war a jaar nangu seet ma doog a am jàmm waaw. nga doog am jàmm. Mhm. tey bi yàlla dogalee tey ba nga xamante ni tey xam-xam bi tey wuy si na la. Mhm. tey mu am lu bari loo xamante ne day lëmbi réew mi. Euh, soxna aw puy ci wàllum seet soxna aw puy boo yegsee ba ci moom ba déggoo ak moom war a toog ak moom ci anam yi mu lay seetalee naka lay mën a def ba gis la waaw ci anam bi may seetee bariwul sax li nit di toog fii li ci bari ci téléphone laa koy liggéey waa ca jamonoy corona ba laa arrêté recevoir ba fi ma toog nii ah, fii ba bitim réew ku ma am sa tur sa turu yaay say at ma seetal la seet bu leer nañ ci kàttunu yàlla waaw noonu daal lay doxalee. Euh, maanaam euh, ci biir corona bi ci nga arrêté woon lu bari. waa léegi moo waral nga jël sa numéro commercial bi di ci taxaw di ci seet. waa tey jii ñi nga xamante ne tey jii dem nañ ba jëflante ak yow. ci wàllum xam-xam boo xam ne kenn dootu ko naatable ci Sénégal ci ni nga koy doxalee ci seet bi nga xamante ni seet bi yaakaar naa ne bu ñu doon xool tey ji ki ñu ko war a a dañ a a daa koy indi daa ji ci jafe-jafe yi nga xamante ni tey jamono ji ñu nii mu ngi am ci Sénégal mhm. ci mim réew mhm. jamono ji ñu soxla ëpp yi lan la gis ci réew mi ah, du li tey tàng moo tax may wax démb laa woo samay sët ma ne leen bu leen jàngi suba barke alxuraan parce que lii bettu ma nee naa leen bu leen jàngi suba téye leen seen doom parce que suba dëkk bi dana tàng wallaahi wal alxuraan lii bettu ma billaahi bettu te gis nga li ci kanam moo gën a doy waar sax tey am na loo xam ne daal buñ fa waree jaar nañ fa jaar rek jàmm am mais tant que defuñ ko rek jàmm du gaaw am si réew mi waa loolu danaa la ko wax tey. sorowu puy am nga léegi loo wax léegi luñ mën a dégg ci xel nga ni ah, lii ba nga ko gisee wowoon nga say sët di leen wax naan tey bu ñu xëy jàngi mhm. kon tey ji maanaam problème bi nga xam te ni am na tey ji ba ay bakkan ñi ne rot nañ ci ne ay bakkan rotuñ ci ba am koo xamante ne dañoo jël otom parking bi nga xamante ne yaa fa amoon yaakaaram mhm. tey ñu ñëw jël ay otom jël image am yëpp yàqal ko ko yàqal ko plus de ay milliards tey ji coow li jamono jiñ toll ki nga xamante ni mooy leader di Ousmane Sonko mhm. ku ko laal ci réew mi jàmm du fi am kon tey jii est ce que jotul léegi ay kii daa wax lii kii moom a tuumal lii lii laa bëgg mu leer est ce que léegi jotul léegi ñu dëxëñ lépp jël ko teg ko ci suuf ànd ak yàlla ànd ak yàlla ba élection jot ñu xool ku baax ci réew mi ñu def ko. waaw man côté boobu sax lay waxee parce que boo xoolee faruma ak Sonko faruma ak keneen. Mhm. mais tant que coowal Sonko mi ngi ci réew mi ñu ngi koy woo mi ngi dem ak ñëw rek jàmm du du du gaaw a am si réew mi. jàmm du gaaw a am ci réew mi. faruma ak moom faruma ak keneen nag man mosuma koo gis. musuma koo dégg ci télé rek laa koy gis mais tant que ñi ngi koy oo mi ngi dem ak ñëw billaahi lii du fi gaaw a dakk te di nga ne waxoon naa la ko bu ñu ko woowaatee lu gën a garaaw lii dina amaat kon léegi kon léegi jamono ji ñu toll léegi euh, léegi lan mooy jàmmi réew mi lii jaaw mi réew mi maanaam ñu bàyyi lépp bu demee ba 2024 yàlla moom ki mu war a fal fal na ko ba pare mhmm. nit ñi fi nekk rek di di la làmbatu xamuñu kan la mais sunu borom fal na bu dee ki fi war a ki fi ne mooy toogaat sunu borom fal na ko bu dee keneen ay toogaat sunu borom fal na ko. Mhm. kii falu moom ci ñun la leerul waaye leer na ci yàlla sunu borom. Mhm. waa mhm. fi mu ne nag bu ñu ko xamee noonu rek nag ku ne xaar ba deux mille vingt quatre nga jël sa carte nga dem boo te soo paree nga toog sa kër xaar résultat. loolu rek mooy tax jàmm am ci réew mi. waaw alhamdulilah gannaaw bi kàddu yi rafet yi nga xamante ni yëkkati nga ko yaakaar naa ne message la te képp koo xamante ni bëgg nga sa réew te bëgg sa réew am jàmm te ngay yëngatu ci wàllum ñaan ngir bëgg sa réew am jàmm yaakaar naa li nga xamante ni soxna Awa Pouye wax na ko gëm naa ni képp kuy référence nii la war a jël te nii tamit la war a doxalee tey ji ëllëgu Sénégal ëllëgu Sénégal mhm. gisaandekat yi seetkat yu bari dañuy taxaw ne 2024 Sonko day falu ñii day 2024 Sonko di falu keneen mooy falu mais Soda Awa Pouye moom lan la gis ci 2024. ah en tout cas 2024 de coow li bari na de. Mhm. waaye li ma la wax sànq. Mhm. kii falu sunu borom fal na ko ba lem ay kayitam teg. Mhm. ñun ñii ñoo fi nekk di làmbatu rek. ñii naan Macky toogaat ñii naan Sonkoy toogaat ñii naan keneen. ku ñu foogul sax mooy ñëw. mais gis nga kii falu yàlla fal na ko ba pare. mais coow li coow li yëpp yëpp yëpp woote yi dem ak dikk yi muy dem di wuyu. Mhm. moo nara taal sunu réew mi. Mhm. moo koy taal buñ ko bàyyiwul. wallaahi wal azim maa la ko wax. allahu ndax yàq yi tey boo ko xoolee man wallaahi sama xol dafa jeex tey ba liggéeyuma yënduwuma jël appel comme ni ma ko doon jëlee. Mhm. liggéeyuma tey ndax xol bu jeex. wallaahi barke alxuraan. allahu akbar ndeysaan macha allah xam naa ne xol bee fees te dégg tamit ni mu waxee. Euh, soxna Opuy yaakaar naa ni nag kenn dootu ko lam-laamee tamit ci mim réew euh, soxna Opuy ñi nga xamante ni saan euh, yàlla suñu borom dogal na nii dañoo nekk bitim réew di bëgg ku leen jàppale ci wàllum seet ci wàllum ñaan ngir bëgg am wàllum kayit soxna Opuy bu jë bu déggante ak ñoom ba yàlla suñu borom dogal seen diggante rax ba dara desu dudul nga war a jëflante ak ñoom sa diggante ak ñoom naka nga leen di jàppale ba li nga xamante ne moo jëm ci wàllum kayit ñu mën ko am. man comme li ma la wax sànq rek. Mhm. sa tur sa tur wayjur bu jigéen say at man su ma ko amee danaa la seetal. Mhm. wax la say sarax. Mhm. tey fii laa toog damaa yendoo saam ay sarax di foto. xam nga ñoom mënuñu génn génne sarax fa ñu ne. fii laay saam. ku ci ne ma génne la say sarax. ñoom ci seen bopp. ñoom ñoo ma ne say sarax comme bal barke alxuraan. ndeysaan ku ma ci génneel sarax rek nga ne ma ah alhamdulilah sant yàlla. Mhm. waa ñoom ci seen bopp ñoom ñoo ko wax te xam naa dinañ ko wax si commentaire yi. Mhm. ñoom ñoo ma ne say sarax comme bala. fii nag ku fi ne. Mhm. dama lay seetal tegte la say sarax nga dem def ko. mais bitim réew amuñu jotu génne sarax ñu gis sakuñ ko jox. moo tax fii laay toog. boole ci ragal yàlla nag. lu may liggéey moom dama ciy sóoraale sama diggante ak sama borom. fii lay jël seen sarax kenn du fa saraxu kenn du fanaan mhm. xale yu góor yaa ngi ne mhm. ñoom ñooy bind lépp mhm. ci liste ñu dem jëndi ko bitik Bamba marché ñu jal ko fii photo noonu daal lay liggéeyee alhamdulilah tey jii euh, ci li nga xamante ne yaa ngi koy dimbalee askan bi ñi nga xamante ne yaa ngi koy dimbalee tamit euh, ñu nekk bitim réew tey jii ñi nga xamante ne tey dañ fee nekk tey ñu bari tey euh, bu ngay ñaanal danaan la nangam nga may fay nangam laa lay defal tey ji yow ci sa xol ak ci sa yërmande tey ki nga xamante ne tey dafa nekk bitim réew te amul dara ngir bëgg tey ay buntam ubbeeku tey bu la joxee turu yaayam ak turu papam tey ba tax nga wax ko secret yi nga xam ne moom moo ci nekk mm-hmm. est léegi yow pare nga di ko dimbali di ko teg ci yoon ba mën a xam carrément la nga xamante ni moo ko doon gàllankoor ngir mu ci moom dëgg la parce que ni ma la waxee rek man seetu bitim réew 30 euros laa koy seetee mm-hmm. te sarax yëpp ci laa koy jënd. ak mhm. nu mu mën a toll nag. Mhm. lu ma ci am ma xam ne loolu laa si am. Mhm. waaw 30 euros moo tax dencu ma ñaar fukk. damay liggéeyal yàlla rek. 30 euros. moom lay seete génnee si sarax yëpp. léeg-léeg damay wax ak nit sama xam ne kii situation am demewul noonu. ma ne ko maa ngi lay yónnee sangat ba nga gis. am na ñoo xam ne nag dañuy gis yónnee ma. am na ñoo xam ne bu ñuy jot enveloppe bi di bloqué sama numéro. parce que man sangat yi dama lay expliquer ba dootoo soxla explication. Mhm. lépp lay bind noo koy sangoo ak lu muy àndal ak ñaata fan lay am. Mhm. am na ñoo xam ne buñ ko jotee. Mhm. du ñu soxla explication. dañuy bloqué directement numéro bi. dootuma leen dégg. mais damay bàyyi lépp ci loxo yàlla rek. waaw. tey jii euh, ngor googu nga xamante ni yaa ngi koy am tey di leen ko defal di leen jàppale ba seen i wërsëg ngir mën a ubbeeku. yaakaar naa ne nit ki boo demee ba am soxla ba jëflante ak doomu adama ba doomu adama génnee la yow ci say situation hmm. yaakaar naa ne bloqué waru caa am parce que ëllëg mën ngaa dem soxlawaat leneen lu gën a pire nga wëli ko feneen doo ko fa gis nga ñëwaat tam soxna mais nga xamante ne mooy aw puy fekkaat ko ci moom ngir mu war laa dimbali kon yaakaar naa ne loolu boo ko defee hmm. kon tey ji ndimbal nga nga xamante ne da koy seen tey doo ko mën a jot hmm. ndax nit ki la ngay sat sa la ngay wuti da nga ciy bëgg a am la nga xamante ne day lew tey ñu gis ni say mbir dara méttiwul fii tey jii ci dakaar fii ci biir Sénégal fii tey jii nit ñi tey dañuy ñëw nga seetal leen ñu war a génne sarax doo ci laaj kenn dërëm nga ne ko diw demal nga génne sa bopp sarax sa diggante ak ñoom lan moo waral ba tey ji boo li nga jëflante ak doomu adama nga ne ko lii laa la gisal li yaa ko dem génnee génneel sa bopp lu waral loolu waaw comme ci ñi nekk fii ci réew mi mhm. maanaam dafa may leer ne ñoom mën nañ génneel seen bopp sarax mhm. parce dina leen yomb ñu joxe ko mhm. dina leen yomb ñu am ko fii ci marché bi mais ci bitim réew. Mhm. loolu du ñu gis kuñ ko jox. Mhm. su ñu gisoon fu fuñ ko jëndee it. Mhm. du ñu gis kuñ ko jox. waaw mais ci wàllu sarax ak ci wàllu sangat am na ñoo xam ne sarax kese seen mbir dox. am na ñoo xam ne nag foog ma yónnee leen ay sangat. même Dakar fii. livreur yaa ngi fi ku ma fi yónnee livreur nga dem ba kër jàmbur nga jox ko. mu sangatu woo ma bitim réew nit daf may woo jooy ne li ma defal gis naa ko. weer bu dee dinaa la may temps. ndeysaan mais du ma gis lu ma may mais du ma ko oo. ndeysaan waaw man du ma woo kenn. ba nga may dikk sexaluma la lem. yaa ne danga may may temps. soo yëkkatee jox ma ma jël gërëm la sant la. boo yëkkatiwul ma xam ne xëy na yaakaar ba nga yaakaaroon xëy na moo mu antuwul wala nga jot denc. noppi rek. waaw. alhamdulilah yéen a ko dégg. première partie bi jeex na ñu ci deuxième partie. tey ji euh, gannaaw yàlla bi nga euh, bi nga leeralee mbokk askan bi ci li nga xamante ni wax nga ko noonu Sonacos dafa am foo xam ne fa laa bëgg ñu xuus fa tuuti mm-hmm. ci wàllum këyit mm-hmm. ci wàllum kër yi nga xamante ni mu ngi tas mm-hmm. kër yi nga xamante ni euh, ndeysaan dañ fay suuri ay gàllaaj wala ilaa ñu fay def kër goo xam ne dañ ko war a miraas bu léegi duñ ko miraas problème jafe-jafe yooyu noonu tey ji tey ji ñi nga xam ne tey bëgg nañ ngir seen kër am jàmm tey ji bu ñu bëggee tey ji ñëw tey ji ci yow ngir bëgg tey nga safaral leen loolu naka lañuy def tey ji ba nga génne leen ci situation boobu. waaw ci wàllu kër yi am miiras ak kër yi am jafe-jafe. Mhm. di gis kilifa gu ñëw. Mhm. surtout ci jigéen ñi. Mhm. ne bëgg naa nga jàppale ma kat lu ma juboole ak sama njaboot. waa loolu kaa yooyu moom dañ ko fi am. te kuy def loolu it maanaam yaa ngi yàlla dala ciy gërëm. waa nga ñëw. ñaanlu pour juboole yow ak sa njoboot yëpp. loolu mhm. moom yàlla def na ñun yàlla ñu ciy dimbali mhm. amaguñ ci benn gàcce ñu ngi ciy liggéey di ci dimbali doomu aadama mhm. ci wàllu kër goo xam ne war nañ koo miraas miraasuñ ko ñii dañuy xaar miraas ñii di gas suul pour miraas bañ a am yooyu yëpp a ngi fi waaye nag saafara yaa ngi fi tamit yàlla mun na def daal nga jóg ci yàlla saafara miraas sotti mm-hmm. waaye am na yoo xam ne day yéex a sotti mm-hmm. ndax gas suul ak xëccoo mm-hmm. ak ñàkk juboo yooyu yëpp a ngi ci famille yi waaw alhamdulilah ah, wax jooju leer na tey ñi nga xam ne tey yoon nañ seeni place yéen ñuy commentaire ci suuf yéen a ngi commentaire daan na maire bi kat wax dëgg fa yàlla jëflante nañ ak ñoom yàgg nañoo gis maanaam maire bi li set da ko mën te képp koo xamante ni jëflante nga ak moom la nga xamante ni yaa ngi ko jëflante ak moom gëm naa ne si kàttanu suñu borom boo ko warul da nga ciy gis résultat mm-hmm. loolu ki ko commentaire dinañ leen wax tur bi léegi-léegi si kàttanu yàlla si biir commentaire bi mm-hmm. kon gàcce ngàllaama lii leen ci bëgg mm-hmm. mas parce que bu ñuy def suñu liggéey dañuy bëgg yéen ñi nga xam ne tamit yéen a yàggoon jëflante ak ñoom ngeen dugg tamit di commentaire tey ñi nga xam ne tey am na ko commentaire léegi la yor waaw day jaay luy doxal place bayre waaw bayre jaay a ngi fii bayre jaay yaa ko dégg mi ngi fi mhm. am na bayre boo xam ne parfum dunia lay ànd àndal mhm. am na buy ànd ak parfum Aïcha mhm. am na booy ci place bi am na booy raayoo. Mhm. waaw yooyu mi ngi fi. alhamdulilah waaw yooyu yëpp daal ñu ngi fi euh, numéro commercial yaa ngi noonu ñaari numéro téléphone yooyu képp koo xamante ni jëflante nga ak moom si kattan suñu borom numéro boobu am na whatsapp di nga ci déggante ak moom yow mi nekk SDE te nekk Europe ngir bëgg jëflante ak moom mu ngi noonu 24 heures sur 24 mën nga déggante ak moom si kattan suñu borom li nga ci bëgg yàlla suñu borom mën na ko dogal incha ñi nga xamante ni tey jii li nga xam ne gën na lëmbee réew mi sama classe yi nga xam ne ay célibataire lañ ma mm. ma daal di mbalee sama bopp daal sama classe yi nga xam ne ay célibataire lañ eh. ndeysaan tey ñi nga xam ne tey dañoo bëgg mm-hmm. soxna te seen i euh, te seen i rawaan àndut ak ñoom ba tax ñuy am problème mm-hmm. jamono jiñ tool xale yu góor yu bëri dañuy bëgg a takk soxna mm-hmm. mais dañuy dem ba ci biir sëy bi tas maanaam war a ñu waxaale dara dem ba ci biir war am ci loolu lan la waaw boo xoolee ci côté boobu. Mhm. léeg-léeg ku jigéen ki dana seetlu ñu ne ko sëy bii de boo ci duggee du baax. Mhm. mais day dëgër bopp dugg. Mhm. léeg-léeg buy dugg day duggaale ak àndandoo. boo xam ne day tas sëyam. wala du juboo ak jëkkër ji mukk. wala wërsëg yu ñàkk ànd wala biddéew yu ñàkk ànd yooyu yëpp dañ koy xool ci sëy. waaw boo ko xoolul nag mën nga cee dugg. sëy dañ koy seet balaa nga cee dugg. léegi problème bi foofu nag foofu laa bëggoon wax tuuti tey ñi nga xam ne tey ji dañuy tëb-tëb bëgg jigéen hmm. dem bëggoon ñaane ji soxna demuñu seeti ji dem ñu mm-hmm. xool ji parce que boo waxee ñu ne loolu affaire de bi daala mm-hmm. affaire de bi la te yow après boo ci dugaatee benn un an sëy bi tas après problème am ba sa diggante ak moom mu ñaawoo mm-hmm. problème bi loolu noonu est ce que léegi jotul léegi ñoom ñuy muus dem di gëstu ji loolu balaa ñu see dugg waaw waaw loolu nag da ci am solo bala ngay dugg ci sëy da ko war a seet muy ku góor ki muy ku jigéen ki ku ci nekk da nga war sa sol sa dàll nga dem seet Mm-hmm. waa ndax ñaar ñoo xam ne daal compatible na niñ koy waxee mm-hmm. loolu dafa am ak yu compatible du mm-hmm. noonu lañ koy waxee noonu lañ koy waxee waa kay mu ngoog yooyu yëpp dafay am ci sëy waa mais doo tëb rek dugg waa alhamdulilah mais nag mbëggeel dina leen gëlëm gëlëmloo ba am na ñoo xam ne loo leen wax it duñ ko gëm ndeysaan hmm. ndeysaan parce que loolu noonu maanaam yaakaar naa ci juddu ci ci juddukaay bi la wala ci ñàkk xamal nit ki cosaanam la waaw ah, ci ñàkk xam rek la ñàkk xam cosaanu nit ki la rek ndeysaan waaw ndeysaan hmm. soxna ëppuy ci wàllum set hmm. ci petaaw ci samp léeg nga dëkk koñ boo xam ne day am ay mbër Mm-hmm. ñii dañuy bëgg a bëri ngir bëgg a seet ba xam seen i combat baax na parce que nag dafa am léegi-léegi benn mbër bu dugg di commentaire daanakat maire bi dama koy dégg dama ko bëgg a seeti ma ne ko noonu heure boo ko ci woowee si kàttan jël tat incha allahu rabbi la nga bëgg xëy na boo ñëwee ci moom incha allahu rabbi da nga ko jox fekk sa mm-hmm. diggante ak mbër yi waaw bëri am naa ci ay xarit am naa ci ay doom mm-hmm. déjà le 18 février man lañ tuddee woon drapeau fii arène nationale waa Mbousnakh production ndeysaan waaw mbus na production man lañ tuddee woon seen drapeau. Mm-hmm. kon yëg gi ñu am ci man rek. tax na ba ñi ci bari ci ginnaaw gi nag mm-hmm. mbër yu bari contacté nañ ma. mais avant ay mbër yu bari maa ngi jëflante ak ñoom. mais macha allah sant yàlla daal. alhamdulilah alamin euh, a ko doon commentaire jour yi nag nee nañ lan moo tax may wax mbëri. te man boole ma leen ci footballeur yi nga xamante ne tey ji maanaam ñoom dañuy bëgg a hmm. euh, déposer kayit bëgg hmm. tukki ngir bëgg a dem footballeur ji ci yenn club yi sangat cangat yeeg yooyu moom la ñuy laajte ci biir waaw cangat yi am na am na cangatu bayre am na sangatu hmm. cat am na sangatu rab parce que ni jigéen amee faru rab noonu la góor di amee coro rab waaw sangatu bayre sangatu cat sangatu rab yépp a ngi sangatu ubbeeku tam mi ngi fi macha allah waaw macha allah sama mbokk musicien yi nag la nga leen di jàppale moom musiciens yi ku dugg sama TikTok. Ah. di nga xam ne musiciens yi ak théâtre kat yëpp samay xarit lañu. ndeysaan macha allah. ku dugg sama TikTok rek. ndeysaan di nga gis li ma la wax si ay vidéo yoo xam ne sama anniversaire àddina bi yëpp a yëngatu. allahu akbar waaw théâtre kat yi ak woykat yi ñooy fees ci sama. sama téléphone. ndeysaan vidéo yi day wàcc comme taw. ndeysaan musiciens yëpp samay xarit lañu. macha allah. ah yéen ko dégg ah kon nag suñu yaay moom la ñu xool si woon fii nga xamante ni eh, moo di pikin te adresse baa ngi noonu incha allahu rabbi képp ko woo incha allahu rabbi eh, dina la wuyu te si kattanu yàlla bis boo jëflante ak moom li nga bëgg si kattanu suñu borom dina ko eh, dina la ko jox soxna Upuy dafa am ñu bari ñoo xam ne dañ koy commentaire mm-hmm. dañ ne soxna Upuy ban dëkk la cosaanoo parce que lii mu samp nii ak mm-hmm. li ñu gis ci écran bi ci ay béjjën ci ay morceau ak ci li nga xam ne mu di pétaw kii ban dëkk la cosaanoo parce que lii nii du mhm. bagaasu gone te du bagaasu xale <laughs> da daam ko commentaire loolu léegi waaw man maa ngi dëkk yeeba yeba yeeba laa dëkk waa dëkk bu ma maa ngi doog dégg de yeeba mi ngi ci ginnaaw sebi xotaan waaye booy dem jas mhm. am na benn EDK bi ñu bind yeeba noor si mhm. kaw APS bi soo xoolee ci ginnaaw EDK bi rek am na ay village yooyu seen man foofu laa dëkk ci biir village boobu ci ginnaaw ODK bi rek am na benn village bu ñuy wax yeeba mhm. ci ODK bi sax Yeba noor lañ ci bind. ci kaw APS bi gise bi ñu bind tooglu. ndeysaan man foofu laa dëkk ndeysaan su ma taxawee sunu kër damay seen à péage bi ndeysaan maanaam daal foofu daal nga cosaanoo foofu laa cosaanoo waaw fa la mbi daal fa la ne waaw fa la bagage daal foofu la secret bi ne <laughs> ah waaw waaw sama mbokk yi nag yéen a ko yéen a ko dégg parce que xëy na tamit ku dugg wax li yaakaar naa mm. ne moom dafa dëkk foofu moo waral tamit mu bind commentaire bi kon ngàcce ngàllaama ah, ah, am na mm. loo xam ne tamit dañ leen koy sant dina ko gërëmee donte temps bi xat na te temps mm. bi ñu mayan parce que ñu ngi ci càppandaw gi ëllëgu Sénégal jàmmi réew mi. Mm-hmm. ëllëgu Sénégal ak ndaw yi. Mm-hmm. ëllëg ngir Sénégal mën a am jàmm yan sarax nga gis ci biir Sénégal ni sarax yi bis bu ñu ko génnee Sénégal coow war na fee mën a dal. waaw ci wàllu Sénégal gi ma gis waaw sarax yi nag parce que boo xoolee mës naa fee joxe benn sarax. Mm-hmm. ci coowal Sonko bu njëkk ba. ah moom ak Adji Sarr bu njëkk ba. waaw newoon naa leen. na ku ne génne saraxu guro. guro guro bu xonk mooy muslu. sarax bu xonk boo koy saraxe da ngay muslu mais damay gis ñoo xam ne dañuy naan saraxe leen suukar balaa day ñëw dëgg la mais samay kilifa waxuñu loolu de dañu ne saraxu guro saraxu ginaar saraxu mbiskit bu safut suukar maanaam yow booy ñaan luy ñëw ñaanal ci lu am suukar day gaaw a ñëw mais booy muslu. Mhm. bul ñaan ci lu am suukar ba pare nga ne dangay ngay muslu. allah akbar waaw dëgg dégg naa dëgg. waaw loolu daal ñun ñii noonu lañ ko xamee. ndeysaan waaw allah akbar waaw ndeysaan soxna Oupy dernier kàddu yi. waaw dernier kàddu yi xanaa di ñaanal sama wayjur rek yàlla yërëm ko xare ko àjjana. macha allah ndax yàggu fee jóge. mère Fall yàlla ko yàlla yërëm. waa di ñaanal sama la Baye Karim Mbacke. borom ma Falilu borom Makarimal Akhla borom bagage. waaw yàgg fi téwér Mbacke Balaye sax ndeysaan waaw ba mu ma ñaanalee ba léegi macha allah daal euh, rëccuwuma ko rëccuwuma ko macha allah ba ma demee sukk mu ñaanal ma ndeysaan ah ba léegi de sant yàlla daal fa la daal waaw fa la bali daal gën a tàkkee ba léegi tey mu ngoog macha allah daal kon kilifa diine yi mhm. nañ leen jox cër biñ leen war a jox mhm. ndax ba ñuy weetal yàlla di jàng alxuraan mhm. booba ñun ñi xamuñu man mi jànguma sa alxuraan am na ñoo xam ne jànguñu alxuraan kon ñoom ay nitu yàlla lañ te dañoo weetal yàlla ba am li ñu am dañoo defar jikko yi kon ñun comme ñoom ñoo defar suñu jikko ak keneen ak keneen nañ leen jox cir biñ leen war a jox foofu laay tëjee Sénégal nag dawalkatu moto yi saa yu ma defee émission wax ci ñoom nañuy takk casque casque mhm. tey xool daal seen dawalin ñu gën koo teg ci yoon tuuti waa yaa ngi wax message bu am solo de. pour bëgg bi Sénégal bàyyi ko xel nga ni. saa yu ma defee émission. Mhm. ma wax si dawalkatu moto yi. seen place ba fii ba ci taala. ndeysaan. nañu takk casque du casque lañ koy wax. waaw li ci bopp bi casque waaw. te gën a seen dawalin da ngay gis porox ndool bu ndaw dina fexe ba dugg fa ba génn. te ñi li ñuy dawalee ñu gën koo teg ci yoon. waaw parce que boo xoolee na ma yàlla baal soog yu bari ci borom moto yi lay ëppee. maanaam daal ren daal bu rëmbatee daal nañ def attention. nañ def attention am na ren bu ñuy wax pogoy. pogoy. reenu pogoy mi ngi fii ku ko mën a def sa oto def ko ci sa oto. allahu akbar reenu renu reenu pogoy dem ak jàmm dikk ak jàmm otoog motoog looy war di dem dugal ci reenu pogoy. allahu akbar jàmm rek mooy am ci kàttanu yàlla. si kàttanu yàlla. waa kay jërëjëf. alhamdulilah ah, tey li lañ leen indiloon tey ji euh, képp koo xamante ne sa kàttan suñu borom pare nga ngir bëgg a jëflante ak moom numéro téléphone yaa ngi noonu surtout laa yéen waa diaspora bi yéen ñi nga xamante ni a am problème mu kayit bëgg ku leen dimbali képp koo xamante ni tamit am nga fa soxla te mu leer ni la jëflante nga ak nit te sa kattanu yàlla la nga jëflante ak moom matut jëflante ak jëmm ji nga xamante ne tey ji moom ngeen gis noonu muy soxla aw kuy si kattanu suñu borom dina la fajal sa jàngoro dina la fajal sa lépp te lépp loo xamante ne da ko def ci sutura la koy defee parce que yaakaar naa doomu adama lépp lu waaye di def dafa war a am sutura te am na sëriñ soo xam ne boo fa demee tey ji di leen liggéeyloo lañ lay liggéeyal dañ la koy liggéeyal ba après dañ koy jëlaat tamit ne ko war faa tamit ci mbedd mi. ba ñëpp toog di ko seetaan loolu dàpp naa ni. du liggéey mm. baaxul loolu bëgg mm. bës la. Mm. te sama mbokk journaliste dama leen di ñaan képp koo xamante ni yaa ngi dem ci ab sëriñ di waxtaan ak moom. ngir yàlla war a la nga xamante ni jotoon na ko liggéey ak doomu aadama mm. loolu ci liggéeyu sutura la mm. bu leen ko jël na ko fàng ci mbedd mi parce que am na loo xamante ni bu ko nit ki di wax ci mm. sutura la ko la ko waxee woon ba mu ko doon def tam ci sutura tamit la ko indee woon kon loolu message la boo xamante ni dañ ko war a mën a jàlle kon tey lii lañ leen indiloon seen émission bi nga xamante ni moo di émission faj sa jàngoro di leen doxaat euh, di leen joxaat dig daje ëllëg ak jàmm insha allahu rabbi mm-hmm. si kattanu yàlla yal na am jàmm numéro téléphone yaa ngi noonu képp ku ko ñam Mm-hmm. képp ku ko ñam. da nga ñëwaat. képp ku ko ñam. wala nga boole ma keneen. képp ku képp ku ko ñam <laughs> ay waxam na képp ku ko ñam. sama wax di nga ñëwaat di nga ñëwaat di nga ñëwaat keneen ak keneen boole ak keneen ko yàlla jàmm am ci Sénégal lii lañ doon wër ngàccee mm-hmm. ngàllaama alhamdulilah